alors mi ngi génnam ah, yéen ngi may déggam foofu baax wa rahmatulahi taala groupe Nokos ñoo ngi nii toog mbay au sëtuma bu sa ab sa mbaay yi mhm. ab sa mbaay ñoxor kuli ab sa mbaay. ca hmm? kaw Birima Daali Njaay mbaay mooy seen maam. moo daan. ñoo daan way taayaani dammeel yi. jiitu ca kanam jiitu ca kanam. rëkk junjung yi gàddu drapeau yi dékku bal gàddu xeen gi. géer géeri fi ñu nekkoon. juróom-ñetti kilomètres ci ginnaaw. sama kër ñoom hmm, sama papa Sale. balu dox moo neex. bu bëri wa rahmatullah. ak daw nu benn yoon. wa barakaatu hoo hoo mantulaay cubandooy lay maxtaar tey nag moom gone nga man maa ngi nii ah, bu ma def gone nag tey bul ma def gone nag doom te ñaar xam nañ lu tax doom bul ma def gone nag man mag laa maa yaay xale yi kër gi man daal xaw kër gi xale yi maay seen yaay sa wert de ragal naa ko di takkal góor ñi di may xale yi mbaa du yaay groupe eh, azoka en tout cas daal naar ne am nga doom bu bees Tapha Naar l'international waaw. Tapha yow may sa yaay. <laughs> Tapha man men bu Pikine. Tapha Naar Pikine waaw sama mag la ak a baax. sama xarit eh. Tapha sa mag la yow maa doon yaayam ndawal Tapha Naar Pikine Pikine. waaw dibiteer yi beeg yo. Ah, ah non non man Tapha Naar. maa ngi koy nuyu sax mantu biscuit bi déedéet mantu sunu yaay wax leen loolu. sa wert de ragal na wala mantu bàjjenu gox. ala càmm bu gox man nag man nag cinquante mille dama ci war a laal. Ah, ndax man fii koñ bi maa fii bàjjenu gox sama koñ fee tamit maa fii bàjjenu ah, gox bàjjenu gox nga tax di koo dem ci réunion ba eh, ndaje ba day bañ ko ko charmé comme nee nañ ah, opération de charme day bañ ko charmé waaw man yëguma ko woon danañ ko la piis sama goro de faaw ñu jël ko bàjjenu gox yi. léegi man président Macky Sall moo tax invité wu ma anam waaye moom ah, sama goro moom. boole ma ci bàjjenu gox yi dañoo soxla bàjjenu gox may laal ci fukki ah, junni yi. ah waaw waaw nga dugg ci de. mais mais Fofana nag Fofana nag fan lan la duggee ci liste bàjjenu gox yi. <laughs> ah man dinaa la ci dugal xam naa présidente beeg vice présidente. ah vice présidente géej waay la dëkk. man li may dox ci problème par jour. maire maire Amici. yii maire am bàjjenu gox laa kay mais ñëpp dinañ nekk ay bàjjen fu ginnaaw am nañ fa benn bàjjenu gox maire Salia euh, kii Salia Dramé euh, man bàjjenu gox laa de foofu la taasukat booy bàjjenay baay non dañoo ñu yëpp foofu man bàjjenu gox laa de non bàjjenu gox nga désormais Mamtoulaye ah, bàjjen ah may nan nan ma ci boole nag waaw bàjjen national waaw man kay egguma ci maire Teresa mais bàjjenu gox moom moom laa ndax man ndax man li lëj ma koy lijjanti ci réew mi xaay suma ooxoon Lamine valorisation réew ah Lamine Balaw Chimère su ma waxoon lii la may lijjanti ci réew mi. Chimère bàyyi Serigne Saliou ak ah? Adja. waaw ak. non ak moom taalibe Serigne Saliou bàyyi Serigne Saliou bàyyi Adja. waaja buruxlu nag. Lamine valorisation non waaja buruxlu moom nañu Ah, waaja tey waaja ah. tey la jëm wal fajri këram moom la ah. wax ma ne eh, tubaab dem na Paris tey ci ngoon démb gis naa gis naa gis naa Moustapha dem ne day dem wal fajri dem dem dem seeti fële 15 heures faw ñu bàkk ko nag dem seeti nag rakkam Cheikh Niass nee na Cheikh Niass démb laa gis Moustapha ko ne ah waaw woon na naar ci baax sama xarit la Cheikh Niass bu bàyyam di kadde dafa toog jamonoy CNP la woon hmm? kan la Cheikh Niass la ko bàyyam ber tey daal magam moo koy seet di ko saytu. tey magam moo koy seet. mu mu boobu jamono yooyu la gérer puissance FM ñu nekk fa. ah bon wolof. di doxal ma fay doxal ah, ah. ma fay ma fay doxal dix huit heures ba vingt heures. ndeysaan mbay ngay borom noo ma pare noo ko si dimanche ma pare noo daan defee a mbay xeeb naa loolu mun a mbay xeeb naa loolu dama ca sàpp di gëndaat saa ji. Eh, nga naan nuyoo nag ma kaa doxal. nga daan nuyoo nag fu mu ah. naan. <laughs> nokkos gi yàgg naa saf. mbay mi en danaa doxal ba mu yàgg may tàggoo may leen. Eh. Hmm. li neex boo ko déggatee. Hmm. yi ma toog. ba suba ak ba suba ak jàmm. <laughs> kon neex jeex na ba suba ak jàmm. <laughs> li daal la daan tàggoo man lii neex boo ko déggatee. Eh. mbay Karima toog ba suba ak jàmm. ca kàttanu borom bi sama xarit bi mi ngi lay nuyu de. Ah. Euh, xaadim Bamba Rasul. mu ngi nii nee ma mbay neel foofa na kontaan naa ci moom. Mhm. Sénégalais yi. médecin après la am. waaw rek <laughs> doléance bi lay wax. waaw mooy <laughs> ah, moo yor seen kàddu de. Abdou Sy maa ngi lay nuyu bu baax a baax sama xarit. tey nag dama retiré kàddu gi ci sama. bambam mbubb yi ma nekk doo leen waxal. <laughs> ah léegi nag. léegi nag. tey jii koon. njiital gëm sa bopp ma nga jëm ca Walfadjri. tey dem na a tey fa la jëm Massawu ji Cheikh Niass. dem na si ni ko yeneen ak ñeneen defee. naat du bu demee ci ma ba wàcc na. ñu nag fii ci presse bi ñu leen bu baax a baax a baax a baax a baax a bu demee war naa dem ku baax nag ndeysaan bu demee it war naa dem. kon ndox ba mu demee. waaw ndeysaan taskatu xibaar la ci réew mi it. Mhm. leader politique la ci réew mi. naar naar bu demee. engagé déterminé donc bu demee war naa mën a dem. Ah, naar daal bu naar daal. wal fa këram la. naar mhm. doxantoo ci na ba xëy na ba xëy ma ba. Ah. def na la ko war. jeex na. kon nag dana seeti rakkam ja fajri fii foog mm-hmm. naa ne ñu bare bëri mën na waat ni jaar nañu wal école la ñu ñëpp fa lañ jaar ñun ñii wallaay dëgg yàlla ñooy masa waat rek xam ne suñu bukki moo leen matt ndeysaan waaw waaw suñu bukki moo leen maat ñun def nañ ñu ko fi ab 31 décembre ko defaat ñu ko yàggul wallaay ndeysaan xam nga presse mhm. man bu ma nekkoon état Adama Ndoye nuyu ma Bandisane Ndoye xolal. chéri Hamza ca biir. sama digganteeg ñoom day neex. xam nga ndax hmm. collaborateur lañ war a doon. damay toog journal quatorze heures. Hmm. wala huit gis ma mbay mu toog. Hmm. ne ma ca dëkk bu ñu naan waajur de. askan wi amuñu courant amuñu ndox lii nañuy dund ni jafe-jafe. day ndeysaan moo war a mën a jël nag parce que tamit xam nga njiitum réew dafa metti te sa entourage immédiat ak ñenn ñi nga nekkal say collaborateur Abdou Diouf dal na ko mu naan juróomi dërëm suuf meew xamul ne xoolal xoolal ma bëri li nga bëgg dégg nañ lay wax su daana seetaan dootul national waaw non xaaral da lay sa gannaaw de hmm. ah léegi nii. léegi dama tuwaat kàlla. président yi dañoo xam ñun xamuñu ko de. léegi boobu xanaa. mais dama ne la xanaa nga bañ a gis rek si xafaam TikTok. xanaa nga bañ a gis dama ne la. dama ne la yow mii yow la yow président de la république jot boobu noonu amu ko président agenda am ci bu yeewoo ba ba muy tëdd. heure bu ne ak mu war def. te xamoo ba heure lay tëdd. waaw mhm. non président de la république munul tëdd ay vingt une heures ak vingt deux mhm. heures. mais trois heures quatre heures du matin six heures du matin nga jugaat wala cinq heures nga jugaat. mais nag du tëdd te xamul li xew ci réew mi. non war na ko mën a xam xanaa kay. dama ne la. yenn yi dañ mën na ci tànk rek bien informé. Mhm. le président moom sax. xoolal fii dafa am lu ñuy tuddee renseignement. ñoom ñoo lay informé. même présidence dañoo am ñoo xam te ne nii seen renseignement bopp nañu yor yu bokkut ak yu ministère de l' intérieur. Mm-hmm. pour wax la rek. Mm-hmm. lu ñuy wax naan seen est le plus informé ou le mieux informé. Mm-hmm. dëgg la mais am na ci ay question yoo xamante ne nii sa waay da lay bett. parce que am na ay zone yu gën a reculé yoo xamante ne nii wala ay mbir yoo xamante ne nii sa waay dama ne. dañuy wax président ba la mu bëgg a dégg. Mm-hmm. Mm-hmm. parce que ragal nañ kat bu ñu nee président lii ak la la ñu amoon ñu perte ko. Mm-hmm. parce que ragal nañ kat ni président bu ma ko waxee lii lan mooy doon réaction. yàllaa ko def président moo bëri doole. njiitum réew am na ñoo xam ne nag moom ak lu mënti am. dañ la naan président. xoolal lii moom lii mooy dëgg bi kon boog doxalee nii lii mooy yoon tey njiit bu ne loolu nga soxla boo bëggee dimbaliku ñi ñi lay wax dëgg nañ la dar voilà moo ni sax foofu ngi muy njiiti réew di directeur général di njiit bu mënti doon boo nekkee moom di ko wax dëgg yow lay gën a fonk yow lay gën a fonk ka nga xam ni day ñëw di ko raay dama ne la mbay ah. gis nga nit ak jox yi fi jàmm nit rek la mën a doon mhm. yow boo tëddee journée bi yëpp boo tëddee bay bëgg a nelaw mhm. journée bi yëpp li nga def danga ci ciy jaar mhm. man de fii ah dem naa xëy naa tës ba de pour pourtant mantulaay la mu doon wax dëgg la de man maa nekk doon safal rek waaye xam naa ne mantoo ne ci dëgg nga ne ba ma jaaree Pikine de diw de wax na ma lii et pourtant bu ma xoolee ba ci biir li ma wax li dëgg la de. parce que nit fii xam nga la moo fi am dof-dof lu rek. moo mm-hmm. moo demee ba tëdd bu la waxee dëgg xam nga ne yow mii dëgg nañ. ku wéet xam sa bopp waaw waaw ku wéet xam sa bopp. Eh, aussi ñoo xam li xew. Mm-hmm. dëgg du romb nopp dégg nga. Mm-hmm. dëgg loolu romb loolu noonu laa lay wax ne même bu dee njiit la laa la wax njiitum réew. wax ko la nga xam te ne nii moom mooy sa akulaay taala ak sa diggante ak moom. Mm-hmm. xam lu tax. Mm-hmm. Mm-hmm. parce que bu même bu amee beneen réaction bu demee ba tëdd nit rek la day toogaat xalaataat ne moo ne de sama conseil spécial bee de. la ma wax de moom mooy dëgg. ñee lañ ma ci wax lépp bëgg lu ma neex la. parce que tamit nekkul ku nekk rek da bëgg a nekk président de la république nga doon ko. da kaa dëgg moom. cër ci relation yi ci relation yi. Mm-hmm. ci diggante nguur ak presse. dama ne man. collaboration bu mag la waroon doon. bu ma nekkoon état. Mm-hmm. sama diggante ak presse day neex. day ratax lool. xam nga lu tax parce que presse dafa war a nekk vitrine tey population bi par rapport ak seeni jafe-jafe. ak fan nga war a intervenir. Mm-hmm. parce que des fois dans. dans les actions da ngay gis na ne état day bàyyi loo xam ne super priorité la dem dugal fa foo xam te ne nii foofu njëriñ am fa. Mm-hmm. orientation yi ngay jël ak décision yi ngay jël da nga ko war a articuler ak li nga xam te ne nii moom mooy bëgg-bëggu aspiration ak jafe-jafe askan wi. Mm-hmm. parce que jafe-jafe yi day différencier d'une zone. à une autre. Mm-hmm. léegi nag pour nga mën a agir. pour nga mën a agir. Mm-hmm. presse bi ñoo la ko mën a yeggee. ñoo la ko mën a yeggee. Mm-hmm. que xooluñu. li nga xam ne neex na la. Uh-huh. wala lu la naqari la. Uh-huh. Walf nañu nekk xolal ay opposants d'accord mais c'est normal personne ne peut faire te autour de sa personne. Mm. ndegam suñu borom mi ngi sàkk sax am na ñoo xam te nii gëmuñu ko ñu ne yàlla existe na. ñoom dañoo jàpp ne ne monde bi la rek bu jeexee jeex na. kon donc boo nekkee njiit. mais nekk opposant aussi mooy lan. nekk ci presse nekk opposant aussi ci presse. non da non waxin la dama ne la. waaw xam naa fi ngay waxee. waaw man dañ leen koy jiiñ. mais loolu mooy lan. relais information bi ni mu amee tel quel. Mhm. non dama ne. bu dee loolu lan lay jiiñee opposant da nangul kon. mais dama ne. du moment où yaa ngi relayer info bi tel quel. dama ne sax ni mu bàkkee boppam. même la voix des sans voix. wuy ma même bu fekkee ci yenn chroniqueurs yi sax ñoom nguur gi jàpp nañ ne seeni doxalin kat du yoon mais man. waaw chroniqueur nga waaw lu xaaral fa xam nga man am na ñoo xam ne tamit dañuy chroniqueur yoo xam ne dañu am fu ñu féete fii. Mhm. di wax. mais gis nga nag kii ñu nangu leen ko yu bare bare ci ne am nga fa féete non xaar fa mbay dama bëgg a wax na ne nguur day nangu appartenance su nit mm-hmm. man mbay sama wujju nga mm-hmm. amul benn problème mm-hmm. dinaa la jàppee ni wujju mais ci yow ca la ngay wax ci laay mën di jël ci njàngat jël njàngat di ko wëlbati la ngay ñaxtu ma koy créer muy nekk ay opportunité muy njariñ ci man dëgg parce que loolu moom mooy wax ji. dëgg la fii ñuy fii ñuy fii képp ku nekk ci àdduna di rey sa bopp. di dang dang sa noon a tax mm-hmm. kon donc loolu njàngat la boo xam te ne nii. nguur da cee war a bàyyi xel. ñëpp mënuñu ànd ak ñoom c'est pas possible. loolu mënul nekk ay opposant à xolal fii ba àdduna di tukki. Mm-hmm. président bu fi mënta doon di nga am opposant mm-hmm. fii nit ku ne. am nga fi koo xam te kii kat. sa waay bëggu gis wala bu mu yéene la safaan ba. Mhm. looloo tax ngay góorgóorlu di dang-dangi. Mhm. kon donc. Mhm. presse munoo ko jël dégg nga di am benn taxawaay bi sa diggante ak ñoom. parce que tamit ñoom seen ligne éditoriale da nga koy respecté. xam nga am na beneen mbir yéen a wax chroniqueur. mais am na ci ñoo xam ne gouvernement bi boo leen waxee ñii ay chroniqueur nañ dañ la naan déedéet ay partisan nañ. Mm-hmm. ñii ñii nañu àndal ndax seen position. Mm-hmm. et pourtant cronique genre journalistique la dafa bokk ñun ci suñu liggéey. Mm-hmm. dafa ñun ci suñu liggéey. mais cronique boo koy def. xooloo lu neex nit ki wala lu naqari nit ki. yow sa point de vue ngay joxe. par rapport ak benn situation boo xam te nii bu tege la. loolu nag amaana na sa waay munoo ci séntu nag ku la ciy taggal say maam. ak ku la ciy wax lu neex. man kay boo ma ciy wax sax. dama ne la boo ma ci tifaare sax sa waay man amul problème parce que il faut ma nangu ne ñëpp mënuñu ànd ak man ñëpp mënuñu nekk ak man mhm. et sur la base ca la ñuy wax ak na ñuy doxalee mhm. dafa may permettre may mën a jël les bonnes décisions daf may permettre may gën di mën a réajuster wu dañ naan une presse mhm. boo xamante ne ni kat day taxaw di wax informer juste et vrai di nekk ci wetu askan wi di jàppale askan wi. Mm. di taxaw askan wi. di mm. wax la nga xam te ni moom mooy dëgg. Mm-hmm. d'accord mais mm-hmm. nekkul ne presque da ko war a jàpp comme un contre contre le pouvoir. presse contre pouvoir la et contre le pouvoir. foofooy différence moom la la mënti a contre pouvoir la et non contre le pouvoir. parce que loolu. nuance boobu noonu tant que ñi amuñu discernement boobu noonu état day dëkk ne di juum ci taxawaay ak li nga xam te ne. c'est que foofu le problème mooy wax dëgg wax dëgg ci boppam moo jafe. ci fii ñu toll fii réew mi toll nii fii réew mi toll nii ak période bi ñu toll nii wax dëgg moo jafe. wax dëgg moo jafe si bépp boor gis nga lii pour du journaliste yi rek ñoo ñoo ñoo jànkonteel lii de. Mhm. secteur bi mu mën ci doon. Mhm. fii kenn nangootul wax dëgg. parce que boo waxee dëgg ñamu arrangé wul. Mhm. ña ngi lay daggal ba arrangé nguur gi mu ne da leen compte. loolu la journaliste yi di dund jamono jii. Mhm. journaliste dina wax def def euh, lecture am ci benn benn mbir. pare gis nga lu ñu lañu xam lañ ko xamaloon daawaati géej loo xam ne ça n'a rien à voir ax liggéeyam. na xola ñu ñu koy tegal lépp parce que lan dañu jàpp ne da leen compte parce que wax na dëgg loolu la nit ñi di dund. Mhm. état nga wax loo xam ne arrangé wu ñu ne nag voilà kii nag moom def ñoo compte xaaral ñu dëggal ko sa tegal ko ndëgg sa rëx éliminer ko loolu la ñuy dund wax dëgg contexte bi nekk nii wax dëgg moom moo metti mais journaliste bi xam na mission am de xam na li ko war journaliste dëgg laa la nag xam na li ko war liggéeyam xam na ko équilibré juste milieu xam na ko mais juste milieu boobu sa boo nekkee am ñu nga xam ne am fu ñu la féetale xam nga wane li xew moom buñu la ci buñu la ci nee da nga féete moom hmm. loolu bu dul tooñ lu muy nur wane li xew wala wax li xew hmm. bu arrangé état ñu ngi manifester suñu soutien au groupe Walfadjri ñu ngi leen ñu ngi leen di masaw a baax a baax ñëpp ñu ngi di nuyu waaw waaw di di solidaire ak ñoom ak vraiment am na ci loo xamante ne nii il faudrait que ñun presse bi mhm. gën ci góorgóorlu mhm. mooy ñu gën a booloo tey dimbalante jàppalante tey jàppalante solidarité solidarité boobu dafa am solo dafa am solo de mhm. dama ne bugaan bu jógee dem ci wal fajri lu war la mhm. loolu lu war la mhm. waxuma sax kasketu homme politique mhm. mais en tant que patron de presse mais en tant que tamit un produit de Walf de war nga fa mën a dem xool marquer sa solidarité dénoncer et puis nekk seen wet parce que loolu tam loolu mooy àdduna moom it dafa am groupe de presse di ko gérer jafe-jafe ju ne dundu na ko. jàppale nañ ko jàppale wuñ ko loolu amul solo. xam lan mooy mbir mi sama mbokk kat sama fami sama fi nga xam ne fa la lépp tàmbalee ba tey yàlla indi lii. la ma war moom mooy dem marqué sama solidarité. Mm-hmm. Mm-hmm. taxaw leen wan leen ne ne xolal ñu nekk yéen ba géej gi fer. Mm-hmm. jàpp leen ñu jàpp parce que affaire bi ñun ñëpp la. loolu mooy solo déplacement et puis loolu aussi mooy solo si nga xamante ni. ñun presse bi war nañ ko mën a taxaw ci. booloo ànd boole suñuy doole di xeex yenn yi suñu xel mi ngi dem ci Serigne Saliou géey Serigne Saliou 22 ci tey. yàgg nañ ko war a bàyyi. 22 jours Serigne Saliou Guèye. Mhm. kenn du nattable la muy def li Pape Ndiaye ci wàllum journalisme. dégg nga mun nga ko ci nekk naan. ci koo xam ne def na ci vingt ans. Mhm. oustaz Assane Seck noo suba gi wax dëgg yàlla tax na ñu bëri xam seen diine la ko wund ak nan nañ ci war a doxee ak nan nañ ci war a taxawee dañ leen a war a bàyyi. Mhm. parce que ñuy wax seen xalaat ak seen bëgg-bëgg sa waay loolu mënul ñàkk. Mhm. nit ku ne ak sa gis-gis nit ku ne sa tolluwaay nit ku ne ak sa bëgg-bëgg. njuumte tamit du ñàkk ci doomu aadama. Mhm. mais lu mënti am mooy dañoo war a jàpp ne yàlla moo sàkk. jaamam ci ab matadi. ci njum ci ci loo xamante ne ni. ñun ñëpp ñun ne parfait. Mhm. ku nekk day def erreur. Mhm. mais lu mënti doon ci bu fekkee ne da ngay joxe say conviction wala say say say gis-gis juum ci loolu man pour man sax loolu garaawul. parce que dafa fekk ne ne sa tolluwaay yow nga waxee. te ku nekk ñu war ko nangul muy waxee ak tolluwaayam. te am nañ fi ñu mën a jaar Papa Ndiaye laata ñuy sanctionné am nañ fi ñu war a jaar ñeneen ak ñeneen ñeneen ak ñeneen la place des journalistes nekkul ci prison. xam nga lan la donc c'est dans les rédactions. ñu def liggéey nga xam ne ne yow di nga ko mën a am benn miroir par rapport ak li nga xam te ne nii moom mooy dund ne askan wi. nga mhm. jëm ci taxaw. Mhm. am na solo. instant bi daal li li gën a jàmp ci réew mi mooy fexe réew mi avancé. Ah, te réew mi mënta avancé tant amul dal. Mm-hmm. mënul ne. tant que xol yi dalul xel yi dal réew mi mënta avancé. donc ñuy ñuy ñuy wane suñu soutien total au groupe Walfadjri. Mm-hmm. Euh, surtout nag euh, sama grand frère mm-hmm. Serigne Saliou Gueye. Euh, moom nag di kenn ci kër gi baax lool am yar lool. disponible lool Serigne Saliou. xel yi daal jógul benn yoon ci ci ci yow ñu ngi lay ñaanal nga génn foofu ak jàmm ak salaam ndaay génn fa mm. nu mu gën a gaawee Euh, di nuyu nag euh, Omar Cheveux sama rakk ji. Omar maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziar di leen fàttali ni aussi tey mhm. njiital gëm sa bopp mu nga jëm ca Walfadjri 15h. Mhm. Massawu ji rakkam Cheikh Niass. ni ki euh, fii ci kër gi. Mhm. ni ko suñu kër gi defee maanaam. ci lépp loo xam ne émission la wala muy édition. même ci journal Tribune xëyuñu ba tey moo ci mujj mu ngi noonu. li Horizon sans frontière wax. ñu ngi xëy di di di wax ci li nga xam ne moom la Walf wax matinal bi da ngeen ciy ne émission yi jàll ka jàll aussi dañ ciy nekk nee na ma nan waxaale ci Modou Ndiaye Bambey TV waaw xam nga rek euh, waaw ñëpp la ñu jàmbaas xam nga rek euh, ay ay ay confrères lañu waaye Walf aussi kër la goo xam ne tàggatukaay la parce que bari na ñoo xam ne bu ñu leen génnee woon ña Walf defar ci kër yi mm-hmm. daanaka journaliste wala animateur dootu desati ci réew mi donc ñuy masaw bu baax a baax groupe Walfadjri tey ci 15 heures Bougane Gueye Dany dina fa dem mm. en tant que politique mais en tant que njiital kër gi aussi mm-hmm. yeggale fa ko groupe des médias bi nga xam ne Euh, ñun tamit dañu koy incarné. Mm-hmm. Euh, di jaajëfal aussi sugu euh, moom professeur philosophie la day defar ay séance de révision pour philosophie ngir waajal baccalauréat bi. Ah, waaw lu samedi 17 juin la koy amal. foyer amoo kan macha allah macha allah sugu. ñu ngi la ciy jaajëfal bu wér wér Assane Fall maa ngi lay nuyu tonton Njambi Sow Lamine valorisation Omar Cheveux sama papa préfet Djibi maa ngi koy nuyu Mbaye Mbaye Jacques bàyyi nañu nag daa jël yoonu boppam de Mbaye Jacques bàyyi nañu nag man daf maa bàyyi ba ma xam ne bàyyi na ma ah Mbaye moom Mbaye Jacques bàyyi nañu nag Omar daf maa woon ne jël yoonu boppam <laughs> eh, Omar rek eh, ak a jonge man maa ngi nuyu baax waa sama benn sama benn ah. kilifa oh, waaw sama eh, Bamba hmm. Bamba Mbub Bamba Mbub baax a baax moom buy jàmbaar lool nag Europe la Aïda Sow Diawara waaw mais actuellement nii mi ngi Sénégal. waaw Ablaye Diagne. yi yëpp. Amina Wade Jokku Xeera. de la part mhm. de Raji Jokkul Xeer. Afia Diouf nee na dafa réeral permis de conduire permis euh, euh, ci turuk Euh, Dame Diakhaté carte grise de DK 3371 AU ak licence droit de stationnement assurance ci VDN bi Nord Foire démb ci guddi 76 539 73 07 Abdou Samb Diallo nee na dafa réeral permis de conduire carte grise euh, ci turu Jaja DK 85 45 AX. 77 593 41 42 Mouhamed Sow nee na dafa réeral permis de conduire carte nationale d'identité carte euh, livrée carte grise euh, DK 34. 346 euh, euh, MC assurance benn téléphone techno ci benn sac am na euh, mi ngi nekk diggante côté Almadi 4 heures 5 heures du matin 78 340 88 94 Marcel Kandji nee na dafa réeral calpe bu bu bu bu gris marron am na ci biir carte nationale d'identité carte consulaire bu Bénin 59 000 francs ak carte visite ci benn taxi diggante Almadi ak euh, ancienne piste Mermoz 70 486 08 18 Omar euh, Touré nee na dafa réeral euh, sac à dos couleur bu grise la am na ci biir ay document relevé de note attestation de bac ak relevé de note terminale passeport carte nationale d'identité benn téléphone pixel démb nag marché marché station dafa mel ni loo xam amitié mhm. cent 77 575 44 42 borom annonce yi dee leen ñëw fii. ñëw leen fii ci kër gi ñu ñu defal leen annonce yi. parce que ñun tamit bu ñu ko bu ñu ko liiree suñu téléphone yi rek. Mhm. Euh, mooy loolu dañuy yaakaar ni leneen la. dañ cay am leneen ak leneen. donc annonce yi c'est gratuit. Ah, dañ ni leen ngeen ñëw taxaw ci buntu bi du ngeen sax bind du ngeen sax yàq stylo encre du ngeen ci frais dara ñëwal Moussa bindal la mhm. nga ta jëlaat sa oto dem yoon ñu annoncé la ko gratuitement amul fay dara ñëw leen fii ñu defal leen annonce yi moom moo gën ci kàttanu borom bi mu ngoog euh, ñu ñu dem ci tës bi waaw mhm. comme démb tendance nga góor ii tey lu raw loolu laay def déet déet euh, euh, tey moom tës bi tësub fafa foofu nag bëggoon naa. avocat tey mu ñëw. Hmm? le porte parole. <laughs> nee na moom bu fa bu bu fa bàkkee ba pare surtout ma bu sooy rek mu bàyyi tës bi. <laughs> Astou village artisanal bu euh, bi nekk ci côté euh, Soumbédioune maa koy nuyu bu baax a baax a baax a baax. te yàlla waaw moom loolu la wax. nee na daal Baye Fall cubb sama rak. nee na foofu. foofu foofu na daal bu bàkkee rek. nee na fa bàkkee rek mu dem. Hmm. yaa ngi wax sax xel dem suñu village artisanal bi nga xam ne exi existé tul jàpp leen ci. tuba euh, euh, fee nga xam ne moo di euh, Lac Rose kooku moom man seen seen seen seen combat maa ko porté nii foofu di porté combat askan bi hmm. lag ba rosatul. Lac Rose. ndoxum taw mi yàq na lag ba. touristes yi ñëwatuñu tourisme local ba fa amoon as néew daanaka dee na. kenn du fa ñëw ba jël gaal yi dugg ci lac bi ndax lan lac ba rosatul ndoxum taw ma dañ ko dañ fa branché ndoxu taw yi hmm. mu mu ray mu rey mu rey lac bi luy saafara bi léegi ña doon def ay xorom ay atang nii defatuñu xorom maire yooyu yëpp chômage la ñu nekk ah. xale ya doon euh, liggéey foofu antiquaire yi hmm. daanaka ñu bëri daw nañ dem Cap-Vert lac ba mu ngay dee hôtel yi ñu si bëri mi ngi tëj ñi mënul wàññi seen ñi ñi mënul tëj wàññi lañ seen personnel. sama mag yi bëgg jënd ci terrain la grosse ko. nan ko xoolaat leen parce que ñoom askan wa ñoo këloo këloo ut benn machine di pompe di xëcc ndoxu ndoxu taw mi. mais nee nañu ax ah, li dégg nañu ne ñu war nañ fa branché waat yeneen tuyau yoo xam ne dafay andiwaat ndoxu taw. loolu mooy hmm. lag bi na dee. d'accord pourtant kay ñu mucc ndox mi rek bàyyi fa euh, suufu kese. Ah. ah en tout cas nawet baa sonn nañu de. fi doon am ndox yëpp mantu bu yóbboo ñu xool ko xool ko. te nañ torop dañuy jàppale ginnaaw raay gi dañuy sonn trop. ndax bu ñëwee dootu ñu jàmm. Lac Rose nga xam ne patrimoine la woon loolu rek la ñu am bokkoon na li daan xëcc touristes yi Sénégal. wallaahi comme Dakar euh, euh, Paris Dakar amatul. Ah. ndax ñoom ñëpp foofu lañ doon ar euh, moo nekkoon destination bi. ah, ah amatu fa. Mhm. léegi la fa desoon as ne mooy lag bi moo leen mën a attiré. lag ba dee na foofu site touristique la. waaw ah, mu ngoog de deuxième pôle urbain bi sa defe naa foofu la woon bu à part Diamniadio bi bu bu Lac Rose am am na. macha allah comme ni ñu def euh, pôle urbain bu Diamniadio dafa war a am Lac mais boo ko fa defee te nga yàq li mën a attirer euh, euh, touristes yi. amul sens yéen ministère du tourisme. sama mhm. Mhm. dem lijjanti loolu moo gën. waaw nañ ko lijjanti nekk fi di defante. nañ ko lijjanti amul benn sens. waaw. Adama Mboup. Adama lettres bi ji. Mhm. dafa am fu muy liggéeyee. ki muy liggéey nag. peut-être ñu ko xamule dégg nañ turam ñun ñëpp man nag dama jot jàpp ne te moom tamit njortu na ko mhm. ne li muy dund kilifa ga ki moom société bi yëgu ko mhm. moom loola njort yónni na nag ay ndaw yuy liggéey ci kër gi foofu léegi nag jot nañu gisee kilifa gi peut-être gisuñu ko moom mais wala wax na noo ñeneen mhm. kilifa gi nag faral na di def ay teraanga rawatina ci kër diine yi ak di jàppale nit yi am ay jafe-jafe rawatina ci faju bi mm-hmm. moom dañ ko jëloon ci société kilifa googu mu fay liggéey mm-hmm. ma waxaat ko mm-hmm. nee na amaana kilifa gi jotul ci problème am bii ndax bu ko jotoon saafara na ko ah, bëgg mu jot ci nag moo tax mu ñëw tës jotewu fa dañ ko jëloon muy liggéey ci société ba sept mois yoral nañ ko ko. ci borom kër goo xam ne. tabaski bi njëkk na. tabaski baa ngi ñëw. Ah. bu demee ci société ba ca nga xam ñoo ko defal contrat parce que ñoom dañuy tabax ay ay ay la ñu yor tabax ay immeuble un peu partout ci diggante Ndakaaroog Kër Mbay Fall. Mm-hmm. moom nee na bu leen ko waxee dañ naan koon sa salaire dafay dépendre ci ONAS ndax ñu dañoo am partenariat ak ONAS suñu ONAS fayee ci lañ lay fay. kuy négocier noonu mais nag moom nee na ONAS jëlu ko. ñoom ñoo ko jël ah, te ñoo ko war a fay. te day gis kilifa gi nag di jàppale ku ne ci réew mi. yëfu Samba mais moom nee kilifa gi nag boo moytul yëgul. yëgul problème bi nee na kilifa gi. boo moytul nee na yëgul. mais fa nga xam ni moom moo di bureau ya fa mu dem signé contrat ak ñam ko xaatimal nee na yoreel nañ ko benn 3 mois bi trois cent mille 100000 ah, lay fay. beneen beneen 3 mois bi 175000 178000 côté yooyu la wax. waaw nañu ko doon compal aslëf li des ñu téye ko. da doon gérer chantier yi la wax. mooy lan. ñooñu ci immobilier la ñu nekk. doon superviser moom maanaam moom mooy gérer lépp lu jëm ci matériel. Ah. mooy fay aussi ña nga xam ni ñoo yor sécurité ba fay parfois aussi man li ñuy wooye menee bari. moo leen di fay genre yooyu la. ngay fay te fayuñu la doy liggéey na trois mois ñu ko njëkk na liggéey ñu fay ko. mu liggéey beneen 3 mois fay ñu ko muy bàyyi ñu ne ko bul bàyyi dañu lay renouveler sa contrat defal la ko ci beneen façon. mais liggéeyaat na ci loolu ba mat 4 mois yeneen maanaam 7 mois yoral nañ ko ko ba pare xëy dàq ko. Ah, maanaam ba chantier ba jeexee dañ ne ko sa contrat ànd naa ak moom. jeex na ba ñu ko. ñu ko xaalisam. léegi moom wax na ban type de contrat la moom. nee na bu njëkkoon prestataire la nekkoon. waaw mais bañ koy signaat contrat leeralu ne dem na CDI. wala dem na CDD. ñaata at la fa liggéey. buñ koy euh, est-ce que mat est-ce que mat na at. ah loolu looy wax nag loolu il faut ñu lijjanti. loolu loolu est-ce que man naat mais problème bi mooy fay bi la wax. Ah, contrat yi boo xam ne de contrat bi. fay fay fay bi la wax ñu fay ko xaalisam. liggéey mm-hmm. ah. Ah. balaa sa ñaq fend loolu lañ digle de. wallaay. ah. borom barrière mooy dëgg nag. waaw loolu dañu digle. ci mooy dëgg nag ñu fay. war naa waaj. ma ana Adama Toon nag. malante daa ko woon daani ana Adama Toro kafe ga laa ko doon laaj ci suba waaye xam naa tey ma daan daa jaar noonu dem reportage ah ma daani nag def loolu <laughs> ma ah, rek bul defati loolu bul defati loolu bul <laughs> ñu dem man de maa ngi tudd Pape Dieng mhm. dama am benn société daal de la place boo xam ne dañ ma jëloon pour comme ma gérer leen seen gestion de stocks ñu signaloo ma benn contrat bu six mois biñ ma ko signaloo wee ma commencé di liggéey ak ñoom premier mois ñu fay ma ko deuxième de troisième bi ñu fay ma ko ci troisième mois bu mu des trois mois yoo xam ne liggéey naa ko kenn fayuma ma ne damay arrêté ni ne ma non bul arrêté parce que job bi pareegul parce que ñooñu dañuy liggéey ci ay immeuble la ñuy tabax waaw léegi nag société bi ay immeuble lay tabax ay immeuble lay tabax. waaw loolu kese nga du doon liggéey yow. léegi man maa yoroon seen béton seen fer seen ciment. seen carburant. lépp maa ko géré woon. sécurité bi tamit yow géré woon. maa ko géré woon aussi encore. waaw te mu nekk nag société bu mag boo xam ne ay kilifa ñoo fa jënd sax ay kër. waaw benn société bu mag la. léegi. société bi nit ñi dañ koo xam Sénégal. xam nañu ko société bi yàgg na fi. waaw société bu am doole la borom aussi kilifa la ko am doole la waaw léegi nag bi ma commencé liggéey ak ñoom ma def trois mois yoo xam ne kenn fayuma ko contrat bi jeex man leen damay bàyyi dina ma noo da ngay continuer parce que liggéey bi pareegul te yaa yore gestion de stocks stock yëpp yaa ko yore yaa xam li fi ne ma ne ok d'accord ma continuer di liggéey ak ñoom signé beneen six mois ñu liggéey loo ma trois mois ci biir trois mois yi ñu arrêté contrat bi sans sama consentement contrat boobu dama ko signé de contrat bi dama ko signé sous réserve. waaw parce que man aussi bon j'ai été directeur de sécurité quelque part ici dans une grande entreprise de la place une entreprise de dix neuf milliards. man nekkoon seen directeur de sécurité. ñoom loolu la ñu xam ci man xam nañ samay compétence moo taxoon ñu jël ma. bon léegi bi ñu arrêté sama contrat au mois de janvier ma woo le directeur des ressources humaines ma ne ko actuellement arrêté ngeen sama contrat sans mon consentement et c'est pas dans le contrat. léegi dama bëggoon man sama bopp. ngeen defal ma le bilan financier ngeen restituer ma ko ma xam ñaata ngeen ma ameel parce que bakkan moomu ma ko je peux mourir demain sama njaboot xam ni kat société bi amel nañ seen papa temps. d'accord d'accord balaa ngay sori yow euh, maanaam euh, euh, trois mois yi ñu la njëkkoon yoreel ak bi ñu bi nga signé waatee contrat ñu yoreelaat beneen trois mois ci lañ arrêté contrat bi yow ñi nga xamante ne ñooñu nga doon jël ñi nekkoon sa ginnaaw yow yaa la doon fay sa poche mbala. bon man maay fay journalier yi dafa am kees guñ ma doon jox benn kees buñ lay jox. yaay fay journalier yi ay journalier rek laay fay ah ou bien comme mooy jënd bu fekkente ni soxla nañu fil de fer soxla nañu benn matériel au cours de la construction maa koy jënd dans la caisse à partir de cette caisse là quoi waaw loolu la doon demee mais man suma salaire man ils me doivent sept mois yoo xam ne fayuñu ma ko waaw sept mois yooyu aussi encore am naa ci ay agent de sécurité yoo xam ne maa leen doon fay buñ ma fayee suma facture ci laa leen di fay fayuñu ma fayuma ñooñu muy subir pression boobu imagineel ku toog sept mois amoo salaire un am ay doom yi jàngi école mënoo fay sa location mënoo joxe dépense mënoo dara alors que ñoom ci seen bopp ils sont à l'aise mais dafa metti bon janvier la ñu arrêté contrat bi ma leen di topp pour que ñu defaral ma benn document boo xam ne liñ ma ameel mi ngi ci pour que bu ma bu ma waree fay ñu fay ma ko loolu mun maa fexe ba am ko boo gisee maa ngi nii actuellement nii bi mu leen adressé correspondance bi décharge baa ngi nii démb laa fa mujjee seen direction bi ma dikkee ñu naan ma léegi daal comme que bind nga pour demander document bi léegi dangay dem toog ñun ñooñu la tontu man nag kañ ngeen may tontu ñun ma on ne sait pas. d'accord entreprise bi mi ngi liggéey. entreprise bi actuellement nii c'est-à-dire entreprise bi ma jël dafa maa jël ci beneen entreprise boo xam ni même patron bi moo ko moom parce que entreprise bi bi bi bi bi jaay kër yi. kër yi ñuy jaay kër mbay Fall entreprise bu ko moom kooku jabaru borom kër gi moo ko géré mais entreprise bu bi ma jël borom kër gi aussi moo ko moom kon benn borom kër gi moom moom ñaari entreprise yëpp bon dans un temps pour bañ ay problème am na ñu ma xamoon fii ci seen TV bon par exemple mën naa tur bi waaw ku ñuy wax bus euh, naa ko woo téléphone ma waxtaan ak moom ci affaire bi dañuy daje woon sax jumaa ma expliqué ko cas bi yëpp mun ma ok dinaa essayer contacter jabaru waa ji ba xam lu may wax amul solution ma woo ko aussi encore wax ko ni ko mu dox ci dox ci amul suite ah man nag sëñ bi franchement mënuma nekk ci naaj bi ñoom ñu nekk di noos te ñu liggéey loo ma liggéey loon nañu ma man ancien militaire la waaw liggéey naa ba j'ai soixante et un ans j'ai jamais fait la prison musuma am benn problème ñoom nag ñoo ma nar a indil problème parce que je peux pas concevoir mu yor suma njaboot tabaski baa ngi ñëw munu ma leen munu munu maa fay suma kër munu maa fayal samay doom seen école ñoom ñu nekk à l'aise ñu ngi may ci loo xam ne bëgguma ji dugg xam naa seen i bureau xam naa seen xam naa kër gi xam naa lépp. d'accord da ngeen doon liggéey ci ay forme yu leer ci contrat ngeen doon ci base contrat ngeen doon liggéeyee voilà léegi bi nga xamee ne maanaam problème bi toll na fii nii que yow dem nga fi nga xamante ne fa nga war a dem. non ma cest à société bi ci boppam. amul syndicat amul dara. c'est une société maison. léegi ñooñu ña fa nekk. du ñu wax. même bu ñu dee du ñu wax. waaw mais man am na am nañ sax personnel bi koo xam ne xam nga man maay joxe le matériel. am na ci koo xam ne moo yore woon bétonnière bi. il est mort il a presque huit mois. jusqu'à présent waa jooju on ne même pas de lui et sa famille. te il a laissé douze gosses cest dire ñoom amuñu benn yërmande ci nit ñi quoi. parce que ñoom tamit dafa am fu ñu basé société boo xamante ne société état la muy ONAS. Mhm. ñoom ci kooku la ñu basé pour yow di la fay yow wala. non man waruñu basé ci loolu. parce que non ci ci la wax. waaw ci loolu la ñu wax waaw lool loolu loolu version la bu ñu ma joxoon. il y presque huit mois bi ñu ma ko waxee. waaw mais ñoom ci seen bopp dañ ma fen au départ. nga baal ma ci tri bi parce que le directeur des ressources humaines bi may recruter daf ma wax modalité ci am yëpp ma ne ko léegi paiement bi nan lay demee il pouvait me dire la vérité ils avaient un passif de six mois yoo xam ne fayuñu ko ñoom mu ne ma non bu y problème monsieur Dieng bul wax parce que fii bu ñu lay fay bu ñu fay personnel bi rek dañu lay fayaale quoi on sous-entend que ni kon au plus tard le huit on paye les salaires bi ma duggee ba ca biir au trois au deuxième mois ci biir chantier bi laay doo ko xam ni ah kër gii kat ndekete personnel bi fi nekk ñi ngi daw depuis six mois sans salaire man leen ma man bokkuma ci parce que je fais pas sur le personnel man prestataire la damay liggéey su facture jot joxe ma facture ñu fay ma mais daal j'ai compris que ni daal ñoom dañ lay utiliser bu ñu paree sànni la fële utiliser waat keneen j'ai rencontré plus de dix personnes yoo xam ne ils moo raconté que ni ma dañ lay liggéeyloo duñ la fay man nag doxuma dañu am habitude boobu duñu fay. dañu xaalis lépp ñaata la xam nga bof da ameel nañ ma trois salaires de trois cent mille francs ak trois ak quatre salaires de cent soixante quinze mille francs parce que après dama arrêté woon la sécurité ma leen mënatuma jël mënatuma leen a gérer sécurité léegi li ma leen di gérer mooy gestion des stocks bi pointage bi quoi oui matériel bi waaw loolu laa leen di gérer loolu ñu signal ma six mois d'accord d'accord fi mu nekk nii ñoom lan lañ teg sa loxo maanaam kañ lañ la war a fay bi nga li gisee ba waxtaan ak ñoom nee nañ xamuñu kañ lañ may fay ma leen ne kañ ngeen may fay bon même si j'arrête mais da ngeen wax ni ma au moins sa xaalis am nga fi temps dinañ la fay temps kay tel date ni ni ma non mënuñu la wax date ma ne léegi defal leen ma benn papier boo xam ne di ngeen wax tout ce que ma me mu nekk kayit boo xam dama koy téye maa ko moom nee ma loolu da bind benn correspondance man leen may yéen yéen vous ma payez pas ak yéen yéen respecte vous ne respectez pas les règles après vous m'obligez à suivre lee règles nee ma ah c'est comme ça ma ne ok j'ai j'ai fait la correspondance mi ngi nii yaa ngi nii di ko gis nii ñoom ñoo ko déchargé mi ngi nii man leen léegi déchargé ngeen ko mënu ma am man ko man en tant que prestataire je suis dans ordinateurs benn clic la rek ngeen jël sama tur monsieur Dieng clic cliquer mu génneel leen sama passif ñaata laa fi am facture temps fay nañ ma ko facture temps fayaguñ ma ko et cetera mais loolu c'est facile bu fekkee nar ngeen jóg dañ ne ma duñ ko def ils ont refusé catégorie duñ ko def xam naa ne duñu ko def parce que jubuñu léegi nag borom kër gi man am na quelqu'un boo xam ni bon sama waay la quoi ci chantier bi laa ko xamee xam na borom kër gi ba biig mi nga may tinu mu ne ma xam naa borom kër gi dafa feebar mais nit ku baax la et cetera mais man xaw ma borom kër gi man je ne le connais pas franchement. borom entreprise bi. moom moom ñaari entreprise yëpp benn entreprise bi jabar jee koy gérer bi ci des mu joxe ko beneen femme encore mu gérer ko fële. waaw man mënuma comprendre daal franchement liggéey loolu ni doo ko fay li ma bëgg mooy borom kër gi mu fay ma suma xaalis dama yore njaboot comme moom li mu li muy xoolee laay xoolee sama njaboot c'est diffi c'est difficile d'avoir des enfants yore kër weer dee mënoo fay sa location say doom di jàngi ji leen di dàq parce que fayuñu seen école yow sa bopp tu as des problèmes pour les nourrir alors que tu de l'argent quelque part mënoo ci jot loolu daal mooy sama problème léegi nag ma fayul ah dinaa ko fayal sama bopp ah, franchement parce que xam naa nit ñi ñoo ma ëpp doole su ma la yóbboo ci yoon it du mujj fenn non du ma dem ci yooyu du ma dem ci yooyu parce que ñoom xam naa leen dañuy bëgg nga dugg ñoom ci yoon ñu tardel la après dootuñu la fay sax dañuy fay nit ñi mais yow duñu la fay mais am naa moyen de pression boo xam ne bu ma ko defee dinañ ma fay sama xaalis. bañu ma ci nag sax te bëgguma fa egg. ndax bañu xam kaso nag xaj na ci xam naa pour man. mais buñ ma fayul sama xaalis risque gros te aussi loolu ñuy liggéey ñoom man xam naa ko ndax maa joxe la ñu ko liggéeyee je détiens des secrets yoo xam ne bés bu ma ko waxee mën naa yàqal entreprise bi lu baree baree baree bare baree bare d'accord voilà waaw d'accord entreprise bi mi ngi tudd direction général bi mi ngi nekk yoof a côté de AGETIP ki ko moom mi ngi tudd Diop la tudd moo ko moom. damay ngi may ay millions. mi ngi ngoog de xam nga man wax nga tawatam de. li ma ci xaw a am ni tiitaange. Mhm. mooy lu ma ne man mun naa régler sama problème lan la nar a defe ba mhm. ne prison xaj na ci. parce que nee na bu demee ci yoon. day bañ dañ koy jaay doole xam dama ci doon dikk sax foofu. Mhm. mais. li ma bëgg a def li bis bu ma ko defee. prison xaj na ci loolooy wax. te pourtant junj na ko ah. à 61 ans jaru na bu mu def dara junj li mu bëgg a def. bu mu def dara parce que nee na li ñuy def xam naa ko liggéey bi ñuy def xam naa ko te niñ koy defee xam naa ko. ce qui veut dire am na ay information yoo xam ne ci biir liggéey boobu bés bu ko génnee. Hmm. prison xaj na si kan mooy dem prison nag. ndax liggéey ba ci yoon lañ ko daan teg. côté boobu lay waxee. am nay information yu mu téye yoo xam ne si liggéey ba na nu koy defe anam nga nu koy defee loo xam ne nii bës bu jëmee kaw coow dana jib. junj ko xam nga tamit Sénégal. Hmm. Fofana. Hmm. balaa may ñëw may la nga wax. Euh, dañoo war a xool bu baax baax ni ñuy signé contrat yi. ak façon yi ñu koy signé parce que problème yépp ci entreprise yi. problème contrat la. Hmm. des fois da dem kalaame inspection du travail ñun la àndil dossier bi nga àndi dossier bi li ci ëpp nag nañ ko topp waaye yeneen it am na yoo xam ne peut-être day ëpp loxo euh, doole ci ñoom walla liggéey bi sakkan ci ñoom mais am na ñoo xam ne dañ naan laan ñi fi ñëw fii tës ñu bari dañ naan la dem naa inspection du travail mais mujjul fenn. Mm-hmm. ku am un ans. am na norme boo xam ne teg nañ ko fii ci Sénégal parce que lépp nag loo lépp loo gis fii ci réew mi foofu suñu ay loi teg na ko tënk na ko it ndax jox na sañ-sañ nit entreprise bu mu mënti doon ci sa entreprise nga jël koo xam ni léegi daanaka daanaka moom jub na nii retraite bu doon retraite bis la moom noo déglu la déglu la noddu gee ba pare retraite bu doon bis la. Mhm. moom déglu na nodd gee ba pare. Mhm. julli ko rek ko dese. nga accepté signéloo ko contrat prestataire te contrat bi nee na bu njëkk ba ci 4 mois la woon durée bi est-ce que am nañ ci droit beneen bi mooy fayagu leen ko la ngeen ko yoreel ci 3 mois yi njëkk ya signoo laa waat loo ko beneen contrat 4 mois mais contrat prestataire c'est vrai nee nañ mën nga ko signé signé waat ko mais ci ban durée. loolu aussi il faut ñu leeral ko parce que nit ñi dañoo man ak sama moroom a ci am dañoo xamul suñu ay droit dañoo xamul li nga xam ne mooy suñu sañ ci entreprise yi mhm. dañoo xamul la nga xam ne buñ nu ko tegee yoon nee nañu am ngeen droit kaas ni lii buñ leen ko teg mhm. te dañoo xamul tamit bu nu ko tegee fu nuy jooyee des fois problème boobu day posé wu parce que da normalement yow boo amee euh, problème ak sa entreprise boo demee inspection du travail dañ la war a tegal ne la yow ci lan ngay liggéey nga ni lii laay liggéey nga teg say diplôme ñun la lii ak lii lii mooy norme bi. Mm. contrat bi ci lii ak lii la war a tënku. Mm. ñoom fii lañ fotee wala yow tamit fii nga fotee nga xam fi ngay taxawee ba pare nag ne la fii mooy yoon bi ngay jaar pour am li nga bëgg mm-hmm. te am li nga bëgg bi nag maanaam force la. maanaam bu dee yaa tooñ entreprise bi daf la war a defal lii force la. jox ko délai su nekkee yow yaa nekku ci dëgg mun la yow yaa juum yaa xamul ku ni man xamoo. ba ngay signé contrat da nga nëx nëxi rek contrat yi aussi nañu jël suñu temps di ko lire. gis nga bu ma mënul liir tu ci buñ ko nangoo buñ ko nangul nga seeti leneen. am yàlla yàllaay buur ñàkk yàlla yàllaay buur. Mm-hmm. te ba pare nit tamit ko lu ñuy wax kenn du jiitu paaka ca ca ca mbaram. entreprise bi borom moom entreprise bi bu leen nee amoo droit sañ-sañ indi fi keneen muy liir contrat nga ba xanaa loolu doo ko ci topp ci yoon. mais nag da nga war a ànd ak ku liiral te entreprise noo war a nangu loolu. parce que nit koo xam ne boo ko joxee contrat mu liir ko su dee mënu ko liir war nga ko mën a nangul keneen ñëw liir contrat bi contrat da koy liir ca kaw. ba fa nga xam ni fa nga war a teg sa signé. da nga ko war a liir comprendre ko point par point dañ ci xoolal ay eh, gis nga gis nga seen seen kii yu ndaw yooyu ñu ciy def entre parenthèse yu ndaw yooyu moo lay sànq ëllëg nga am problème ak ñoom di kaas ñu tegal la contrat bu ñu ko tegee inspection du travail entre parenthèse bu ndaw boobu am ca ne la lii la mën a too ca dara parce que yaa signé noir sur blanc am na entreprise yoo xam ne foofu na da jox 48 heures wala 72 contrat bi wala une semaine nga liir dem liir nga xool ko liir ko attentivement. am ñu naan la sama contrat du génn. xam nga koy xool nga liir kon. xam nga. Mhm. dafa am ci loo xam ne entreprise yi dañ ci jouer comprendre. Mhm. am ci loo xam ne ne nit ñi ci seen bopp. Mhm. ñàkk a xam. moo leen koy yóbbee. entreprise dina la soxla nga ñëw def entretien. Mm-hmm. mu xool gis ne am nga prédisposition yi wala am nga aptitude. Mm-hmm. mën a def te liggéey au delà. Mm-hmm. diplôme yeeg yi nga xam ne da nga koy wane. arrangé nga ñu. Mm. ñu tagal la. charte yi contrat. léegi yow nag bu fekkee ne ne yow liggéey bi rek nga gis da nekk ci xat-xat koo xam te nii bëgg nga il faut nga liggéey ñu ne la kat contrat bi de liiral boo comprendre léegi nga signé boo paree nga jox. Mm-hmm. dégg nga. Mm-hmm. yow même bu fekkee comprendre la yoon nangu mooy. nul n'est censé ignorer la loi. loolu la wax. Mm-hmm. nul n'est au-dessus de la loi, mm -hmm. mais nul n'est censé ignorer la loi. Mhm. et si nul n'est censé ignorer la loi dafa ne bu fekkee ne yow mi jàngoo dañ laa war a assister. Mhm. nga jox la la dëgg la. loolu la yoon wax. Mhm. la ko mu leer. am na entreprise yu koy bañ. waaw fa laa jëm génne. waaw jëm. léegi nag yow bu fekkee ne ne moom da nga nekk ci tartar goo xamante ne lii sa waay kaañ la. ñu bëri dañ naan damay jël signé gëmm te fekk na ni ca virgule ba wala point ba wala entre parenthèse la mantu lay wax fa la problème ba nekk. suñu gëmm baa te yow munoo ko cerner parce que lu dul boo demee justice ngay doog a xam wala nga dem euh, euh, kii inspection du travail ci ngay xam ne ne yow foofu nga defee. ñun bu ñu joxee contrat salaire rek la ñuy xool. waaw kese. salaire ñun salaire la ñu xool bu ñu arrangé ñu signé. ak lan la CDD CDI. noonu loolu rek nañuy xool ak prestataire la. kese prestateur nag Mandoulaye. à tout moment mun nañ la arrêté. Mhm. à tout moment. tout moment mën nañ la arrêté. dégg nga. Mhm. beneen bi di boo duggee ci CDD. foofu tamit wax ja nga fa. CDD benn yoon la wax yoon wax na ne da ko war a renouveler. CDD. boo ko signalee contrat deux ans ne ko CDD nga renouveler waatal ko ko CDD dégg nga loolu benn kaala parce que après dinaa ñëw ci beneen cas boo xam te ne mhm. nii ci CDD la nekk mais yoon dafa may entreprise bi pendant cinq ans mu lay signaler CDD loolu dinaa ci ñëw ci wàllum investissement mhm. APIX am na contrat yooyu dinaa ci ñëw mhm. xoolal nga signé CDD CDD bu tegee benn fan bu weesu bés bi nga xam te ne nii moom nga moom nga signé dégg nga te notifié wuñ la ne war nga arrêté danga war a dugg CDI. Mhm. Euh, prestataire CDD. CDD laa wax. waaw deux fois. CDD deux mhm. fois. CDD bu ñëwaatee ñëwaat waxuñu la toogal. nga ñëw ba ba mois ba nga ko signé woon jour ba ñëwaat ba ñëwee ba tegaat. Mhm. loolu da war a dugg CDI. dégg nga. Mhm. ah boo caaxaan mooy lan chimère. Mhm. loolu. ah ci contrat. Mhm. ci ay contrat de travail la. comprendre hmm? mais li foofa na wax nekkul. loolu mais li mu wax dafa moo am. wuy boo jugee ci loolu. boo jógee ci loolu. dafa am ay contrat yu ñuy tuddee xaaral la contrat yu ñuy tuddee. agrément boo xam ne da nga koy am ci appex mm-hmm. boo xam ne ne au titre des investissements bu fekkee na ne yow investisseur nga ci réew mi dégg nga mën nga may nañ la nga mën a signer nit di ko renouveler des pendant cinq ans pour que le temps entreprise bi mën a toog mën taxaw mën a sukkaliku <laughs> parce que ñu bëri tamit dañuy dem liggéey ci yooyu mais duñ ko xam te boo demee après APIX boo yóbbee contrat du travail bi inspection du travail loolu nañ lay xamal. Mm-hmm. c'est clair mais wax ji moom mooy kaaw waa ji problème bi mooy même bu dee prestataire la dañ ko war a fay xaalisam. Mm-hmm. loolooy dëgg parce que nit mënoo ko liggéey loo dégg nga te ba pare sax waa ji beneen jàngat bu ma ci am kii pourtant ku jub la. Mm-hmm. waa ji ku jub la parce que xam nga lu tax moom ba ba fii ma jàpp parce que benn benn lay tam benn pàq la mhm. société bi waxagul mhm. mais bu fekkee ne moom mooy fay gardien yi di leen pointé di fay di fay vigile te moom fayuñu ko te mu yor xaalis goo xam ne mënoon na ko ci tekk wala mu daw ak moom ni ay moroomam def mais su boobaa tamit dangay xam ne ne kii ku jub la maintenant lu tax boobu ba léegi ñu koy dagg-daggee naan ko kat waaw waroon nañ la fay weer bi mais bàyyil ba weneen weer signal la quatre mois ñëwaat trois mois parce que am na ay liggéey yoo xam ne tamit nit ki mënoo ko signal CDD parce que xam nga lu tax parce que contrat liggéey bi nga am yow un an la wala six mois nga ko war a réaliser képp koo mënti jël mhm. li nga mën moom mooy ne ko dama soxla say service mhm. ñëwal nga def ko boo paree ma fay la nga dem ñu dem mhm. loolu tamit dafa di baax ñuy leeral nit ñi. maintenant nag nit ku liggéey te fayoo ko moom teguwul fenn. teguwul fenn. Mhm. parce que contrat moo leen. lii da ngeen waxtaan ba juboo kon boog dërëm warul des ci li nga xam te ni moom nga ko war hmm. daal moom nee na njort na ni kilifa gi yëgu ko. Mhm. kon nag kilifa gi ñu ngi ñaan boo ko yëgee. nga fay kii sept mois am ndax it borom kër daa metti gis nga moom la mu nar a def. ak lu ca mënti xewit responsabilité bi yëpp ci moom lay këpp après. kon nag kilifa gi ñu ngi wax bu fekkee yëg nga lii comme li nga wax léegi nag foofa na benn wenn lay moom pàq la waaw waaye nag teewul ni dañ ko war a fay xaalisam ko fay xaalisam. a fay xaalisam mooy dëgg de. Ah, parce que tamit am na yenn ah, yoo xam te ni gis nga. Mhm. dañ koy wax rek. mais yenn entreprise surtout BTP yi. Mhm. buñ ci defoon enquête. gars yi dañ mhm. ciy dund. danoo sonn esclavagisme moo ci am. dëgg la liggéeyal nit ñi liggéey loo gaañi ba ñuy bëgg fay bu rëy la. fay ñoom li ñuy engagé. Oh. bu dee deux cent mille. bu ñu defee sous-traitance yow cinquante mille ngay laal. Oh, c'est vrai de daanaka loolu presque dara doo laal liggéey bi yëpp. te parfois ñu la yore ay allié yàlla mu nag bu sa ba di bëgg jeex. duñ la fay. sim ñu dem machine. dem màkk def farata hajj bokk na si lu mag si islaam looloo waral orange indi na leen ay xewal yu yaatu si seeni offre passe voyage ngir ngeen di jokkoo ni ngeen ko du er juin au juillet durant le hajj restez en contact avec vos proches en profitant des meilleurs tarifs en roaming et sur les passes Maka au dièse à partir de 2500 francs retrouvez toutes les informations sur les passes Maka sur orange.sn leer si xol ak ak bu nangu Orange

Chaque jour est une nouvelle opportunité pour faire bouger les choses. Alors, commencez chaque journée avec le goût d'une bonne tasse de Nescafé classique, fait à partir des meilleurs grains de café et torréfié à la perfection pour vous offrir cet arôme et ce goût unique que vous adorez, pour vous aider à commencer en force et tirer le meilleur de chaque journée. Commencez en force, finissez en force. Nescafé. téléchargez l' application 1xBet def sa dépo bu njëkk nga jot bonus su 200 pour cent ñu may la ba 120 000 francs lii mooy bonus bi ñu mësta maye di bonus bi gën a rëy 1xbet bookmaker bu wóor la ñëpp respecté ko te mu fiable dig daje ci 1xbet point sn bindu leen gaaw ci code promo 221 RS ngeen jot bonus bu rëy bu leen di dalal ñu ko naan bonus su bienvenue si sa dépôt bi njëkk léegi nga koy jot jël leen gaaw seen wërsëgu gagné 1xbet da lay jox lu ëpp pomi lonaas ànd na ci pomi ko amul fukki at ak juróom-ñett mënoo ci bokk mmh. te a gën a xam ne roy dunduluk piir jamono soppiku na te man damay soppiku xoolal <laughs> li ngeen soxla rek Madaroxy plus indi ak parfum bu jéggi dayoo sa fóot day gën a xëpp set te di nees si ak Madar plus bu bees bii seen bu bees système la moom daal luy dëgg. Hmm. ku fay xaysam. borom entreprise bi xaw ma fu mu mënti nekk mi ñuy dégg. Hmm. xam naa de moom yeewoo te dégluwoo tas ci miim réew moom. Hmm. da feebar. dama ne. Paw sama xarit bi nee na. article L 43 prévoir na yenn secteur d' activité yoo xam ne moom employeur bi am na sañ-sañu bañ a limiter nombre CDD bi. waaw gis li ma wax mooy ba cinq ans bi. mooy article L 43. ba cinq ans kay. Mhm. maanaam amul limitation amul cinq ans amul limitation. madame wax nga dëgg de. à chaque fois que de besoin da nga da ngay da ngay sama xarit bi loolu la ma wax. commentaire yëpp mooy nee nañ ko na kii nee na nee na ma ba tey na xool ba xam. euh, amul lien de subordination si ne pas contraint par les horaires de l'entreprise mooy oh. contra bi mooy la ma wax rek ndëgg sërëxi oh. ci contrat yi rek koo war a fay nañ ko fay xaalisam ah bonne fois xam nga mën a def ci contrat boo xam ne benn foot bu ndaw boo ko defee entreprise bi am na sañ-sañu dàq la te du la fay lim la yoreel day nekk ci contrat yi te duñ ko xool ñun day nekk rupture de contrat am na ñoo xam ne dañoo ñeme yàlla day nekk ci biir ndëgg sërëxu contrat yi te ñun duñu ko liir bu baax mais ça dépend ci kii occasionné rupture bi li tax li occasionné rupture lay doon ay faute te te ça dépend ñoom lan la ñuy tuddee faute grave faute lourde ça dépend ci entreprise aussi de des fois <laughs> Mariam Dia Mariam Gueye nee na dañoo sàcc saagam saag amee bu am carte nationale d'identité euh, yu tudd Astou Seck passeport euh, ay euh, bijou blanc téléphone note 8 ak chargeur ak reen këram Ouest Foire la woon 31 mai 77 537 42 kii moom nee na monsieur Pape Thiam nee dafa fàtte ay euh, euh, garabam ak ay documents yam importance ci moom ci benn taxi. Mhm. le loolu onze le vendredi passé mi ngi nekkoon ci côté chauffeur bi ci taxi bi euh, vers treize heures trente mi ngi dali Dalifort ngir dem xaar yàlla koo gis rek na woo chauffeur taxi bi wala mu woo Pape Thiam ci 77 536 vingt 21 wala mu indi ko Zig FM laajte ajaratu Aïcha Ñing. Mhm. borom borom borom entreprise bi la ñuy ñaan. ak tabaski bii. Ah, nga xam ne nag. Ah. am ay xoo dina jafe lool. comme moom waaye defal yàlla la. foofu am ay xoo. ay dina jafe lool. ay xoo. ñun nag xolatuñu waa ji dafa tooñ wala dañ ko tooñ ñun xolatuñu loolu. dañu ne. xoolatuñu la ne ca contrat ba xoolatuñ ko. 61 mhm. ans la am. mag la. yore njabootam di fay location. Oh, kooku mag la. mag la de. te yow mii sa tur bi dama koo dagg. xaw ma na nag mosuma la gis mais dégg naa sa tur bu baax a baax ñu koy wax. fii ci kër gi damay dégg ay nit yu la xam lool di wax sa tur. di wax teraanga yoo xam ne da koy defal ay nit ñoom ñu koy gis. gën a jàppaleel nu nag sunu papa ji. ngir yàlla jëmmi Seydina Muhammad alayhi salaam. te li ngay def ci këru diine yi tamit paa bi wax na ko. man it ma koy dégg fii. Ah. Mm. te wax dëgg yàlla comme ni de bay sa weewu tànk. même bu dee benn fan ñaqal na la ko. rawatina nag sat mois nit di la ko ñaqal. wax waaye defal yàlla daal. bul xool contrat ba la ca ne. Ah, bul xool façon ba mu bàyyee. Mm-hmm. bul xool dara. dama la ñaan te yàlla rek tax diggante jullit ak jullit. Mm-hmm. ak tabaski boo xam ne mi ngi teru te sunu papa ji yore njabootam. war a fay location ay weer fayu ko nga def te yàlla tax. fay ko sept mois bi te boo ko mënee defal li sama papa coon naan buuñaa buuñaal mm-hmm. bu dee mën nga koo buuñaal nga la waay buuñaal ko ndax xam naa ne boo ko buuñalee du la wàññi dara wàññiwu la dara parce que nag jooyu mag jarta xeeb xol bu tàng mag jarta xeeb ñaanu mag aussi jarta xeeb mm-hmm. soo ko mënee fay te yàlla tax ba buuñaal ko ñun dañ la ñaan nga fayal ñu ko buuñaawal ñu ko te yàlla rek tax. surtout que moom sax nee na kilifa gi daf koo yëgut. ah moom loolu la jàpp. waaw moom loolu la jàpp bu ko nee na ma dafa dafa njortu ne mbir mi ah. daal eggul ci moom. kon moom mbaaxaay kon yow kilifa googu. Mm. xam nga wax nañ maa ko bàyyi ba wax ba ñu bàyyi ba entreprise bi fu mu nekk. tur bi mm. entreprise bi dagg nañ ko. Mm. mais boo déggee di nga xam ni sa entreprise la ñuy waxal. Mm-hmm. ngir yàlla ak ku ne ci entreprise bi te xam waa ji. dëkk Kër Mbay Fall. na ko wax mu jàpp ci. te yàlla rek tax hmm. dimbalil nu bàyyi booy bii ndax xam naa ni la nga xam ni moo ca am lépp danga koo yëgut ñu hmm. ñëw ci information bi ci source a mbay mais muy société intermédiaire yi nga xam ne ne ñi ngi mhm. tukkil àdduna ñoom mhm. mhm. takk suñu doom yi suñu kii rakk yi moomum jaam goo xam te nii sa waay foo ko takk fu ne weesu na bëgg a rey jël xale yi di leen exploiter rek leen ci dellu si xaaral dinañ ci ambre beneen dinañ ci wax ay ta nga ne lu xew nga ne waa ji doon kaay bi sur saa mu ne saltige la waaw nee na nag bokk na ci ñi nga xam ne gënoon nañ leen ràññee ci wàllu mystique lool. Eh, ci ci côté Fatick. Hmm? nee na nag ville bu Fatick ñëpp ko xàmmee woon. Ah bokkoon na ci ko xam ne gënoon na ay daanaka ci gox boobu ci séeréer yay faj. Mhm. ak di libérer nit yi nga xam ne jinne yi daal dañu leen duggoon. Hmm. Hmm. waaye ña nga xam ne liggéeyu bonit da leen jàppoon. bokkoon na ci ñi ci ràññee woon lool ci aayoon di ko faj. Oh. kooku hmm? ji nag nee na. da doon teste benn paaka bu bees boo xam ne da ko doon teste ci yaramam. Hmm. moom pour wane moom ne dafa blende dëggantaan. dafa tul kii wóolu di testé boppam ay na. wallaay ba pare jënd paaka bu. bees parce que wane moom fu mu dem daan na wane ni. ne ci xew yi. ak ci xoy yi sax. kiraama fësoon na fa lool. kiraama daal nee na fa saltige yi daan défilé. daan def di di di di défier. waaw waaw dañ koy def chaque ay défi. di wane ni mën nañ dafa daan dem te daan wane. Mm. xam-xam. Eh, eh, eh, mën ay na ay na ay na. noonu ba test bi jàll na rek. nee na nag moom bi yoon da doon testé nee na yàgg na ko testé ci arme blanche yàgg na ko testé ci arme à ah, mu jàll. tulam tulam ah, ah, tubarka mais da doon jàpp bi mu jël paaka jàpp oh. bii nag dafa doon testé paako bu bees far mu jàpp ëpp mu faatu eh, eh. Oh. Eh. gannaaw blessure yu metti mu am problème ba nag mooy dafa sulli ay wax ca gox ba paaka ba déggalu ko ndax déedéet ah, nee nañ tul ba la fàtte takk dafa fàtte tul këram jaagar jaagar dem jëndi beneen paaka bu bees di ko jam boppam pour essayer paaka bi. yëf ya bët yëf ya bët ndekete oh. takkul tul bi. Oh. ñoom nag ñu ne. dafa am ñu ko sot sotoo. waaw kay dafa am ñu ko sot soto am ko am ko attaqué ko ba pare am ndam ci kawam. Eh. Eh, eh, ndax ñu bëri foofu nga xam ne xam nañ ko yéen kaay bi nee na dañoo njortu ne ay attaque la. Hmm. yuñ ko def. ko xabtal waaw kay. dañ ko nag am na ñaari soxna am na ay doom. te lépp loo xam ni mariage la woon wala muy ngénte wala muy ay prestation yu daan am ca goxu Fatick googee muy xoy yeneen lu mënti am te saltige teew fa dafa daan teew te bu daan jëfandikoo paaka wala arme arme à dara mus see dugg. tey nag paaka bu bees bi doon dugg na. nag boo war moom fa nga war a faatoo moom. jam na ko. daanaka lépp ngay fàtt lépp ngay fàtte. boo waree fàtt moo ñëw rek foofu saa mat. waaw de moom yàlla moom boo waree fàtt benn mbir. amaana da day day lëng bët sa bët day day day fàtt sama xel ba nga fàtte la nga war a takk sax nag. li ñuy faral di wax daal fàtt gis. jërëjëf tam la ñuy faral di wax. jërëjëf waaw. Mm-hmm. daanaka mujj. Oh. na ko yàlla yërëm. amin amin amin paaka bi nag mënoon naa dégg ndigal nag. Ah, hmm? ah paaka bi lu dégg ndigal vu que moom tuul da nga koy takk. te moom takku ko moom mënoon na ko essayé ci loxo yi sax en attendant les. xam naa da ko tàmm essayé foofu dara yàlla siruk siruk tur ga lay rocc. wallaay. Hmm. ñoom nag nee ñu def def la yàlla moo bëri doole. Ah? ñoom nee nañ def def la. neen xam tala ci am wala leneen. ah tubaab ñaara mën benn. du bëri du bëri. Ah. yal na ko yàlla yërëm. amiin amiin amiin amiin yal na yërëm ci kaw. amiin amiin yal na ñu yàlla suturaal. amiin amiin amiin foofu ñëpp yal na leen yàlla yërëm. amiin amiin yal na leen yàlla sutura. amiin foofu na leen yàlla yéem sel yërmande seen kaw. Mm-hmm. yàlla ba fii nag ah yal na ñu yàlla dëgëral kon. amiin amiin tey dolli xéewal gi. Mm-hmm. dolli sutura si ñi amagul borom kër yal na leen yàlla may boroom kër. Mm-hmm. njëkkante ñu mel ni mbay au carré surtout mu bëri ñi nga xam ne amagoo leen soxna it. Ah. noonu kazaalika. yal na leen yàlla may jigéenu njëkkante gu mel nii mère Mantoulaye Thioub. Adja del wax Adja. nga ñi nga xam ne caabi féete na leen ginnaaw yal nañ ci yàlla yàlla dimbali leen ñu gaaw cee génn. ñi nga xam te nii ña nga wopp nekk ca kër ya ca lopitaan yi. yal na yàlla gaaw fëgg seen bopp yàlla yow mii nga xam ne koo jàmmal ku ne mu am. amiin nga ko tuur ci askanu sunu gaal. amiin kon bu ko defee ñoo fi jaaroon. à demain incha allah incha allah.